procureur las bobu lay waxal un procureur bâtard kooku luñ ko mëntatu woyé sax wessu nako c'est un vrai bâtard j'assume mes responsabilités nit ki nga filmer ko mu fil téléphone bi ngeen na da ngeen koy yóbbu garde à vue ci justice la né ñëwal émirat arab uni nga jël film ngay soldat ak mënta mëntati doon nga filmer nit bu la porter plainte filmer ngeen dem police 100000 dirham ngay fay amende

mooy li nu war a njëkk a defar Sénégal mooy justice bi c'est un vrai bâtard ce procureur là fii sañ nga dëkk yu am loi yi ngay naan ay da ngay filmer nit kenn sañu ko Sénégal rek lan lay filmer nga ñëw di défendre li tax ñu lay filmer ñu ne non bul défendre kaa ñu tëj la kaso mel li Sidi Lamine ñas wax rek laa gëm Sidi Lamine ñas mu ngi ci kër dëgg nee na Sénégal ak Macky Sall nguuram bi ay carte leen fi jëlee. tant que taxaw leen jàmbaarloog ñoom duñ fi jóge wasalaam